alaykum wa rahmatullah ñi ngi siyaar mbokk internet yi di siyaar mbokk rijal yi di siyaar kulukum kep ki nga xamantene rek yaangi tewlu suñu vidéo bi ci bërëb bi nga nekk ñi nga fay fekk di la siyaaree batu la ilaha illa allahu Wadilan di len wax ne rek eh, hakul mubin TV ah, genn na Dakar ñew ba ngir dooleel si suñu sang bu tedd bi di Cheikh Omar saane docteur dëkk fii si jurul à six kilomètres de agsi woon nii si daaraam bi nga xamante ne fii la laxasaa yi amaana gis nga ko samp ñu buggoon rek euh, dugg def benn siyaar xool barab bi présenté leen li nga xamante ne amaana moom moo fi nekk waaw kon su ko defee waa di leen wax na rek waa barab bi moom moo nekk nii juru à six kilomètres de waa laxasaa yi amaana ñoom ñoo fi suñu njaatige ñoom ñoo ñu dalal waa ñu bëggoon rek amaana waa ñu topp suñu jawriñ bi di Cheikh Adama Gueye mu wan ñu barab bile ak yeneen mbokku réjaal Baye Fall yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ak moom muy Moussa Ndiambe Baye Birane ak Baye Sidi oui bëggee nañ bu baax a baax. oui bëggeete yi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di màggal bu baax a baax Haqqul Bobine TV di leen dalal jàmm fii si Diourou Diourou Baye Fall ñu ngi di màggal lu bari doole waaye di bëggee suñu mbokku baay faal yi waaw di bëggee di bu baax di leen ziar bu baax Baye Birane ñu ngi di bëggee bu baax di sant di sant bu baax a baax di sant ku baax kii moom mi ñu boole fii di ñu tàggat waaw fii nag depuis 2019 lañ fi dugg si depuis 2019. boobaa léegi def na cinq ans waaw boobu ba léegi ñu ngi fi ñu ngi yaatal bu baax nag waaw ñu ngi yaatal bu baax a baax waaw dañuy wax bisimilah seen daara la waaw daara ji daara yi xaqul mubin la daara yi ñàmme borom daaru la gis nga ko. bëggewaat bu baax di leen siyaar bu wërëwër di leen ndamo waaw te naa leen bisimilah mu ngi ko kii garabu papaayo la gis nga ko. Euh, moom nekkul garab bi jóg ci kaw lool lool lool lool lool gisoo ko te mun na mun na mun saa su nekk rek waaw meññante fa moom gisoo ko da koy gaaw a da koy gaaw a joxe da gaaw a joxe muy doom yi dafay gaaw a def doom te du jóg yenn jóg waaw mu ngi noonu kii koko la waaw biit koko bu gudd bi la ak koko am na bu gàtt am na bu gudd dëgg yàlla waaw noonu day ñu ngi nii lii yëpp moom la xaaka saa fa yëgul. Wala mu ngoog kokoy moom bañ koo sampek léegi si ñetteel at la toll si ñetteel at la toll nii wax dëgg yàlla ak sa ba ci biit waaw gisoo ko moom la pépinière yaa ngi nii waaw boo xoolee desitu pépinière yi ñoom pourtant ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk nii quoi ba léegi nii waaw te gisoo ko samp gis nga ay orange la moom it euh, benn jamono lañ leen samp ñuma ko limo yi ak filaw yi ni waaw ñum yeb ben jamaale len samp wax deug yalla waye tamit amna ay mandarin tamit waaw amna mandarin amna xet ay goyab ñepp ak ñu ci biir fi comprendre nga ay ki ñu tuddi pamplemousse waaw ba ci wajjal ñu tuddi encore avocat avocat it fi wax dëgg yàlla karasol karasol tamit am na fi boo xoolee benn ngi bu ndaw bi karasol la ak sa, ki karasol la mu ngi noonu ay ba ci ngi gis yi muy garab yi nga xamante ni amaana garab yu xaw a dummóoyu la tuuti ci xaal bi ndax jam ñi duñ koy bàyyi xel lu bare moo nekk bu mag wow waaw te garab gu baax la ci bërëb wax garab gu am solo la ci tamit waaw garab gu am solo la ci bërb yu ndaw yi di sax ni moy koni waaw moy moy koni mom day bari na bari na ci àll Casamance gi trop waaw bari na ci àll gi trop mom moy koni mom garab gu am solo la moom it bi tamit ki la orange la momit, it waaw orange la mandarin ma ngi ne mais orange greffé la quoi dañ ko greffé waaw bi tamit mo ngi ni nga gis la goyab bi mo nek non sa ginnaw bay Ali waaw boobu boobu mooy boobu goyaab la benn la ci yi tigi waaw yi tamit koko la ba léegi waaw moo ko yëlee daanaka ay weer moo dox seen diggante nii rek waaw benn jamono lañ leen samp ndaw ñoom it waaw def nii ba nii moom la waaw du du du dara te méttiwul wax dëgg yàlla mais bassin bu mag bi mu ngi fële. ngay gis noonu. fa la ñun fa lañ daan rootee. indi di ko di soo ko di roose. fa la ñuy rootee ñëw di root tànk tuur. waaw waaw tànk tuur moom la ñuy def. ba ne bassin bu mag lañu amoon tool bi lépp lépp li nga gis muy garab fii ci tool bi rek la nga xamante ni ñun ñoo ko fi jëmbat nii. waaw noonu lañ ko doxalee ba mu agsi fii mu agsi tey jii waaw. mu ngi noonu faral ma mbuus bële mbuus mbuus bële. Hmm? waaw yi ay ay yi la ay ay fleur la bismillah ak leen waaw yii yii yëpp ay xeetu ay xeetu la tamit gisoo ko bërëb ba dëkkuwaay baa ngi nii bërëbu bërëbu bërëbu bi la bërëbu ku tedd ki la waaw bërëbu ku tedd ki la fii fii fii mooy suñu palais wa palais bangi ni palais bangi ni tayala rek a tax aka saa fekkoon palais nak buñ ko euh waaw aka sa kilifa lañ fi dalal wa njitum rew wa njitum rew quoi e, Baye Ali ni euh li ay ananas la waaw li ay ananas la ñoom ñu ngi produire bu baax wa ananas la wa bu ñu ngi produire bu baax buñ ko fi euh mu ngi bëgg a tamit ndax ëpp na at wa mais booba légui wax dëgg yalla mu ngi joxe bu baaxa baaxa baaxa baax waaw mu ngi joxe bu baax ak saa ci bismillah ñëw leen nii waaw boo xoolee ba léegi rek benn variété bi moo fi ne ba léegi quoi waaw kokoy ñoo jàll na lee ay limon yi orange yi ba léegi gisoo ko yi tey jii mën ay garabu cosaan lañ ci bërëb yi nga xamante ni fii lañ leen fekk ñu nekk ay garab yu mag waaw ay xeetu garab yu am solo li leen wax garabu taba waaw ada <laughs> ngi nii ki tamit mooy garabu tulukuna waaw ki garabu tulukuna la quoi waaw mooy de garabu tulukuna mu nekk garabu garabu garabu rar <laughs> waaw Wow, wow, wow. L'ultimate ndox transformation la rek. comme nous ngay transformé ji non la rek. comme ni ñuy transformé karité. Mhm. non la rek. Mhm. waaw. amaana tey jii buñ ko buñ bëggee indi détail mën nañ ko indi nag détail mën nañ ko détaillé nii bu baax a baax a baax waaw ndax leer nañu mais waaw amaana temps bi mayuñu ko ak yooyu noonu waa ak saa fage mu ngi noonu léegi tamit soxna yi ñooy yëngu fii wax dëgg yàlla suñuy yaay booy yi ñu nekk ay jàmbaar waaw ñu nekk ay jàmbaar ñoom ñooy yëngu fii ci des fois nii rek ndax amuñu temps amuñu temps moo tax temps en temps lañ ciy yëngu nii waaw mu ngi noonu ñoom ñoo jot a taqale lii rek te ay soble ay soo ko salaat ay persil waaw mu ngi noonu ay ay ay navet supame jaxatu euh, batante waaw mu ngi noonu bay ala jëlaale ko ko noonu fuddan la mooy garab bu ndaw boobu noonu ci wetu ñàmb yi mu ngi nii kii tamit jëlaale am na solo fuddan la waaw lii moom pépinière ñàmbi la woon nii rek waaw mais fuddan la garab bu baax aussi garab bu am solo muy garab bu cosaan tamit waaw mag ñi dañ ko daan jëfandikoo seen loxo yi seen tànk yi waaw ba si jamono nag amana ndaw ñi rëre nañ ko lu bare bare bare mais garab bu baax garab bu am solo la si na seen njëriñ wax dëgg yàlla bari na trop waaw waaw mu ngi noonu lii tamit banaana la waaw banaana moo nekk nii wax dëgg yàlla moom it yàgg na fi lool yàgg na fi lool kii tamit garabu ko na la comme bële waaw comme bële waaw moom moo nekk nii nan ngeen koy alimenter ak panneau solaire waaw moom day panneau solaire yi moo koy doxal ndax amuñu courant amuñu courant panneau solaire yi moo koy doxal moom si jamono ja nga xamante ni ci lañ dugg si moom it 2019 bi d'après 2019 2000 euh, début 2020 ci lañ ko gisoo ko jëmmaal nii waaw début 2020 ci lañ ko jëmmaal d'après que février jëm mars daal ci la ci waaw sax la am ndox nii waaw février 2020 waaw jamono corona gi noonu ah waaw ci lañ ko jëmmaal wax dëgg yàlla booba léegi mu ngi noonu lii mom garab buy sax la ni rek bu gudd gi li li ñu wax jasab waaw bo xolé mag ñi fële salum ba bawal bi xam nañ ko bo leen jasab rek ñom xam nañ ko garab gu bax it bu am solo waaw garab gu am solo waaw bay sey ni mu ngi non bassin ba ngi ni lepp lay garab ci bërepp bi rek fi lañ tanké dem rosé ji fofu nonu wallahi waaw malka bee nekk ni malka bee nekk ni aca aca bismillah de it ay pepinyar limon la won ay orange xama muy nono ngi noonu waaw lii tamit pépinière koko la pépinière koko la ñun eh, ñoko pepinyar amna am na koko bu gudd bi am na koko bu gatt bi ndax lepp rek mu ngi teunku ci ni nga koy ni waaw kooku bi gudd bi gudd ak bi gàtt mu ngi tënku ci ni koy liggéeyee rek mm-hmm. waaw mais garab moom garab la ko day jóg xalaa ku laal day jóg waaw mais am na ni nga xamante ni am na na koy doxalee mm-hmm. waaye màggam du gaaw yenn gaaw yi moo tax ñu la kooku kooku gàtt quoi mm-hmm. màggam du gaaw yenn gaaw yi par rapport ak beneen bi nga xamante ni da nga jëfandikoo ci beneen anam bi moom lañuy wax gang kii gang la waa siin war nañ koo xam siin Saalum leet ba legi ci bërëbu soxna yi la bokku ay kanja la mu ngi non papa yo yaangi ni bay aali waaw yi mom gàncax la bërëb la ba nga xamanteni ni euh, dañ ko gum ni pour malay ak yoy nonu sa saaru forêt ni quoi donte dañ ngui koy liggéey nag pareeguñu dañu pareegul moo waaw mais forêt la pour malay quoi wa ndax tamit mbay mom hala kulli hal dafa dafa giar ak yar dafa ànd ak yar jur gi ak sa munta ñak ndax tay ji dañuy soxla dañuy soxla si jur gi li ñuy bay ñun dañuy soxla si jur gi yaa ngi dégg waaye tamit ñun li ñuy bay jur gi day soxla ci lool lolé mu ko tam motax ñaar yi dafa and trop dafa and trop mo ba taxon na mom lañ bàyyi pour malay fa lañuy ñuy it bu ñuy bay fa lañuy baye mbayantu yi ni rek wul waaw pour rien que mën a occuper espace bi waaye tamit rien que mën a occuper ñax ba nga xamante ni moom la jur gi soxla ndax nekkul ñax bi génn rek jur bi da koy lekk déedéet mais am na ñax bi jur bi soxla waaw moom lañ resta bërëb bii nii moom lañ resta pour loolu noonu tamit ñu ngi leen di waat bu baax a baax a baax a baax di leen tiitaroo waaw Baye Birane bisimilah. waaw yaatu na yaatu na yaatu na macha allah. di leen siyaaraat di leen màggalaat bu yaatu yaatu yaatu di santaat sang bu tedd bi rek. ndax lii lépp moom la rek waaye li ko Baye Diorin waxee moo ñu fi boole di dund mbay ak maanaam li ñuy wax li tubaab di wax spiritualité xaw ma <laughs> waaw yaa ma a xam mooy mooy jaamu yàlla ak yar ndax lépp lu fi ne rek yar la nit ñaa ngi yar nit ñi ñu ngi yar nit ñu ngi yar garab yi ñu ngi yar mala yi te loolu rek mooy njëriñ bi ci kaw suuf bu lépp yaroo rek loolu bu yaroo rek àll bi yëpp yaroo surtout doomu aadama moom. gis nga ko ak sa ndax lépp moom si moom lay bàyyeekoo rek kon dañuy santaat bu baax waaw maam borom daaru wax ne lépp waa dëgg fa yàlla nii rek lay demee li fi nekk gis nga lépp njëriñ la daal li waa ji wax dara yàquw fi lépp njëriñ la lépp lu fi nekk rek njëriñ la quoi ak saa fay ndax macha allah bi ñu fi ñëw àll bi nii la meloon lëndëm ah Baye Fall <laughs> waaw noonu la demee lëndëmoon waaye nag si kattanu waa ji moom macha allah tey ah waaw mu ngi nii. te ba tey pareegul ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi waaw ñaan nañu gis nga ko mu gëna yaatu rek seen bërepp la baar fakala sha allah ñoo ci bokk yam waaw nañ japp rek jappando ñun ñëpp ko doolalante rek te Yalla rek tax amna am nañ yeneen amna amna nañ am nañ am nañ yeneen xàll mhm. euh, xat mais man dafa am luma ma ni rek ma bëggoon la ko laaj mhm. ndax baye mi ñu wax fi lu ndu mëna waaye nag si kàttanu ko tedd ci tey nii gis nga ko amaana leer kenn si nit quoi mm-hmm. ba mu koy wax rek mu may wàcc ne mm-hmm. borom xam-xam yi ne nii lañ doon def dañ doon dem fu dara nekkul ñu def fa dara fu kenn dëkkul ñu dëkk ko waaye buñ ñu fa toogee ab diir lépp daf leen di fekk si tigi confirmation boobu noonu lañ fi am quoi tigi muy nit ñi muy mala yi muy garab yi xaal bi yëpp gis nga ko avant dem ba day wuyoo géy fii nii tigi waaw ci loolu noonu rek la buggoon ci lu gàtt nga xaw ñu see dimbali tuuti est-ce que waaw loolu de dëgg la comme ni nga ko waxee ni ko suñu borom dogalee di bàyyi Mouhamadul amin Guèye Euh, def ñoo dajale yar ñu ci fulla yar ñu ci fulla yar ñu ci fulla yar ñu ci engagement ñu ñeme engagé wu lan mooy impossible loo xamante ne jaam ñu ne loo mënul nekk ndax ñun bu ñuy ñëw fii bi ñu waa dëkk bi ne kaay leen ñu woon leen seen àll bi ñu ànd ak ñoom wàcc fii dañu doon xool naan dañ doon wax ne mais booyi ñoo nar a gor fii xoolal comme nii la meloon nii ñaay bii ngay gis dafa laxasu woon lépp ay màdd ak ay boo nekkee ci biir presque doo gis jant bi ci kaw ndax jaxasoo euh, ci ci ñu àndee noonu euh, mooy maanaam say boobu noonu ñu ne lenn bu ñëpp àndee doon lenn moo gën kii nit ñi dañu ne bëgg nañ liggéey mais amuñu financement ndek ne financement ngëm la ngëm mooy financement lii du ay milliards moo ko def pas-pas la ak itte ak ngëm moo ko def ñu ñëw ñu jàppalante di ko gor ba mu kii ba mu xàll ko ba mu set Euh, ñu ñu ñu ñu samp ko euh, Baye Omar Sané di Baye Diorigne Baye Adama Guèye ñu jàpp ci liggéey bi affaire bi di yaatu lool ba mu toll nii. tey jii nii loolu nag dañ koy sante Baye Mouhamadul Amine Guèye tey am nañ am nañ fit tey am nañ fit am nañ fit ñeme nañ xalaat feneen ak feneen ak feneen ndax xam nañ ne loolu dong dong moo mën a samp euh, mooy islam jàmm ji. lii dong moo ko mën a samp ndax tey bëri na ay éléments yoo xamante ne nii fii nga leen mën a indi fii nga leen mën a indi nga nga nga defar leen fii ku fi ñëw day sant yàlla ñun ñii nii bu ñuy ñëw ci genre bërëb yi muy loolu tey nag sante nañ ko Baye Mouhamadul Amine Gueye def def nañu euh, ñu mun a engagé wu ci dund googu ci liggéey boobu noonu waaw ci pas-pasam moom Baye Mouhamadul Amine Gueye mhm. waaw sante nañ ko yaatoo yaatu sax waaw di bëggee waat rek di leen di leen ziar yéen waa télé bi Haqqul Mubin TV ñu ngi leen di bëggee waat bu baax di leen fasal di leen ñaanal yaaram wallahi ak yéen ñu mel ni yéen ñu ngi leen di fasal bu baax a baax fa ngeen namu seen liggéey xàgg fay bi àggale ko fa si doole laa ilaha illa allah waaw di bëggee sama mbokk Baay Faal yi rek di bëggee waat ñëpp di sant di sant di gërëm bu bëri Cheikhuna Cheikh alamin ak saa di bëggee Cheikh Omar Sané ñu koy bëgg baax mom lañu waji bolel fi booleel fii boobu ak léegi ànd baa bëgg yag te gis nga ko ndariñ nek lañ ci am yokate gu bari wallahi yokate gu bari yegg day wa ñu koy bëgg baax diko ñaanal gudd fan ak wër gi yaram mom tamit lam bëgg ci liggéey bi yalla xam na ko yàlla na ko defal ci doole la ilaha illa allah defal ko kulluhum rijalullah di fasal suñu kut baax ki mu yag fi lol te and ak wër mom tamit ak saa bërëb baangi ni leen bay faale waxon ci bërëb bi rek lolo fi ne way bërëb la bo xam si ni waaye dako fay indi yaatal ñu fi pour ñuy tarbiya tarbiya bañ fiy ñëw àll la woon àll amutoon dara vidde la woon lii fi nekk yëpp Baay Faal yi ñoo ko jaayante def ko fi gis nga ko si si si seen pas-pas ak seen itte kon gis nga ko mun mënuñuy gërëm mukk tant que ñoom wala ñuy tëj te ñoom waxtuñu santuñu leen gërëmuñu leen gis nga ko di gërëmaat ku baax kii Cheikh Omar Sané ah waaw ñu ngi koy bëgg bu baax dañ koy bëgg baax dañuy bëggee rek waaw dañuy bëggee bu baax a baax waaw waaw billaahi walaahi wa taalaay ak sa lañu boole fii nag loolu rek la dëgg ak njub dinal haq dinal khuda lol moñu bolé fi gis nga ko xam yalla jaamu yalla ne bo xamé yalla na da ngay jaamu yalla gis nga ko jaamu yalla nak kenn du ko defal kenn ya koy defal sa bop ginnaaw ba nga xamé yalla égal da ngay jaamu yalla jaamu yalla rek am solo lol moñu bolé ci bërepp bi ñu fi nekk fi yag fi def fi ay 5 ans def nañ fi 5 ans tarbiya lañ fi nekké tarxiya tasfiya saay su nekk nak borom baa ngi ñuy gane si gis nga ko di feddale colère gi nga xam si ni moom nañ seq ak moom gis nga ko muy dëgg ak njub dëgg ak njub ñu ngi leen di bëggee bu baax kàddu gi na da dul yomb day dis torop waaw day dis trop si baay Fall yi waaw nag gis nga ko dañoo bëggee rek xam na la matoon a wax gars yi wax ne ko Amar si Amar Sané dina ñëw gën a leeralaat mbir mi bu baax a baax ñu ngi leen di bëggewaat bu yaatu di leen fasal bu yaatoo yaatu jaa jëfati